boos numéro bi la ma envoyé par message normal mu ne ma naa jël numéro bi ma dugal ko sama compte ma wax sénégalais yi ñu dugal xaalis bi ci numéro bi ñu versé xaalis bi ci numéro bi waaye bu sénégalais yi xam que numéro bi moom moo ko moom moom boos bi nga waxee loolu boos sama xel tey sama xel dalu ci yow ndax nee naa la dañu ànd ñu dem ci médecin bi kuy defar prothèse bi nga bañ wax naa la proposition yu bari yu leer nañ nga bañ yow daal lenn rek nga bëggoon mooy ma jox la xaalis bi si suuf nga koy encaisser di ko lekk di noos boos dama lay conseil en tant que frère boos demal nga liggéey boos demal nga liggéey nga amal sa bopp man duma ñëw si internet bi proposé sénégalais yi nee leen pour nañu def cagnotte ñu jënd umi protège ba pare nga di ma woo téléphone nee ma pour yow nañ la dugalal xaalis bi si pet bu ko sénégalais yi xam man doxuma si lu ci bëdi ba tax na yow boo génnutoon def vidéo jël ummi mii taaj ko miy wax barke sëñ Saalu Mbakke man duma génn sax di ndax ummi mii man ba léegi waxuma ak moom téléphone lu jëm ci affaire protège ndax yow boos dangaa baari lépp boos nga jël doomu jàmbur ji jël ummi mii di ko utiliser di ko businessé man dama lay conseil en tant que frère man jàppaluma la dara barke sëñ Saalu Mbàkke liggéeyal nga amal sa bopp gis nga victimisation bi doxul yërëmtul bi doxul boos dëmba ni nga waxee man ak barki dëmba sa kàddu doyuma sa wax doyuma ba tax na man li may teg ci loxo sénégalais yi day doon lu leer nañ ndax xaalis ni ñu koy amee dafa metti c'est très difficile dafa métti très difficile doo tëdd nelaw ba 18 heures nga génn ci mbedd bi di ko for non ba tax na dama lay conseil en tant que sœur bàyyi dóor bi bàyyi victimisation bi bàyyi yërëmtulu bi boos nga dem liggéey te yàlla rek a tax yàlla dina la teg loxo nga taral umi mi jàppale ko. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi problème mu boos ak ndaw si princesse ak ummi léegi laa ko dégluwaat gis ngeen problème bi mooy sénégalais yi du ñu wax dëgg. ummi mii la ay mbokkam war a dem wut sa médecin ba wuti cototis jàpp xel mi raxas ko ba mu set parce que kii xel mi nekku fi boos da koy utiliser comme dof da koy utiliser pour son propre intérêt handicap bi mu handicapé laago gi ci la koy utiliser di yalwaanee ci moom di ko defee business man seen sëy bi daf maa jaaxal xaw ma sëyu lan la xaw ma sëyu lan la sëyu yalwaan yalwaan fii yalwaan fee lépp boos la lépp boos la man damaa xam man sama turu boos bi dinaa ko saasi nan ngay tuddee sa ndey boos te nekk pauvre bu ban nan ngay tuddee sa sa sa bopp boos te yoroo da jaw ndeyam tuddee sa bopp boos nekk pauvre bu doxaan ndeyam da koy utiliser day utiliser ummi ummi tamit yow danga ngaa mën a fen yow première vidéo nga ne tu n'es pas présent maanaam yow nekkoo fa woon ba boos yi wax ak ndaw si nga ñëwaat def vidéo ne yaa ngi woon tox ñaari wax yu bokkul lu ngeen def yéene ko tey bu leen ndayu yeb sénégalais yi boos yow gom dof rek mu doon dayi liggéeyi nga takk sa xuur yow laago woo sa koy demuwul ñàkkoo sa dambal ah sa benn tànk kenn dagg ko sa loxoo ngi dox yaa ngi noyyi sa bëri yaa ngi gis di noyyu am lépp munoo takk sa xuur yi liggéeyi nga topp di yalwaan rek sarab ndeyi li waay maa bëgg ma bañ góor gu yi waye di billaay yaa waye di boos sa bopp bi nag garabu darkase salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi gis ngeen Mina li mu wax moom mooy dëgg boos magum jëmm la jàpp boy bi di ko utiliser rek yaa ngi dégg bëggul ummi am tànk ku nar wutal ummi tànk day nangu xaalis bi récupérer ko day utiliser booy bi parce que ummi bu amee tànk wërsëgam day tëju imaginel ummi mu am tànk di jaagar jaagar yi takk ñetti bin bin cristal yu bes yi def war ngi ku na da koy war ñàkk wërsëgam day tëju boos moo war a liggéey te bàyyi yalwaan ji jàpp ummi di ko utiliser rek di ko yóbbu ci télé yi jàpp yaayam dugal ko ci valise yi di ko diri télé bu moo dem ubbi ko yaayam génn bi di muus toog ci kaw naan moos ba ma mooy am at bi nangam nangam ñu cëkk ñi lay wër handicap yi fi mu dafa iñaan lànk ne ubbi bu mu am tànk lu tànk ubbi bi gën a cëkk ba yegg si lëf rek boos jël bu ko may wun nag lëfi handicap yi nekk ci senegal yëpp dana ko jeexal utiliser leen <laughs> ba non man soo naruma ko woon parce que man wax dëgg fa yàlla xam mooy yi mais man affaire bi lu ma jaaxal mooy démb femme bi démb ba ñuy wax ba muy waxtaana bos affaire yi au la maa ngi toog bos a ngi toog ñu waxtaan wax wax bu rafet man tam mu wax ma xam nga ne ma jàppal sa jëkkër sa jëkkër ku baax la yooyu noonu bañ ne ok yooyu noonu salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi Sénégal yi yëpp ñu ngi may wax naan ma waxal ci couple lafañ yi amati nan problème ña ngay wax waxu protest ak waxu audio bu fuité xam ngeen lan la sëyu lafañ yi maanaam diggante boos ak ummi danoo sonal nit ñi topp internet bi di yalwaan rek danoo war a arrêté ummi mii ku wow bët la te ñeme te dul kat bu mag la ummi xam nga boo demee ci commentaire boos yi am na kuy commentaire naan ay euh, waaw euh, am nan doom ñun ñaar doom ji dafa décédé xam naa ko mais dëgg la wax am na doom ñoom ñaar dossier boobu joxoon nan ma ko ummi am na doom bu décédé mais dama ko doon bañ a génnee sénégalais yi di wax dafa wow bët mën a duul boos mën a yalwaan ak ñeme ay jooy ñeme ay jooy mën a yalwaan am na ñoo xamante si nii Côte d'Ivoire la nekk ku dee eh, bu nit deewee dañ lay ni fay ñu jooyal leen yow boos foofu nga war a dem ñu lay jël ngay jooy ñu dee ñi sonal ngeen nit ñi ci yalwaan da ngeen a war a génn ci réseau yi te xam ne sëy àndiwul réseau ñeme ngeen réseau yi torop jóge fi mais bu teyee ngeen exposé seen bopp te du ngeen suturaal seen bopp kooku la yalwaat rek yalwaat rek yalwaat rek yalwaat rek may ma diw parenthèse su tànk laa soxla sama koy bi dafa damm dan may waaje kii nangam nangam boos bu ko defee mu yokk boos da war a wat sa rasa yi di sa rasa yooyu di mu ne néegu kaña kenn xamul looy nural sa kanam gi da bàmmeelu nag waaye boos yaa sa tuñ yi nag moom man no waaye non non waaye may nañu jàmm waaye te ngeen sëy seen sëy bi yow Oumy waw nga bët te ñeme nga te mën a duul boos numéro bi la ma envoyé par message normal mu ne ma naa jël numéro bi ma dugal ko sama compte ma wax sénégalais yi ñu dugal xaalis bi ci numéro bi ñu versé xaalis bi ci numéro bi waaye bu sénégalais yi xam que numéro bi moom moo ko moom moom boos bi nga waxee loolu boos sama xel tey sama xel dalu ci yow ndax nee naa la dañu ànd ñu dem ci médecin bi kuy defar prothèse bi nga bañ wax naa la proposition yu bari yu leer nañ nga bañ yow daal lenn rek nga bëggoon mooy ma jox la xaalis bi si suuf nga koy encaisser di ko lekk di noos boos dama lay conseil en tant que frère boos demal nga liggéey boos demal nga liggéey nga amal sa bopp man duma ñëw si internet bi proposé sénégalais yi nee leen pour nañu def cagnotte ñu jënd umi protège ba pare nga di ma woo téléphone nee ma pour yow nañ la dugalal xaalis bi si pet bu ko sénégalais yi xam man doxuma si lu ci di ba tax na yow boo génnutoon def vidéo jël ummi mii taaj ko miy wax barke sëñ Saalu Mbakke man duma génn sax di ndax ummi mii man ba léegi waxuma ak moom téléphone lu jëm ci affaire prothèse ndax yow boos dangaa baari lépp boos nga jël doomu jàmbur ji jël ummi mii di ko utiliser di ko businessé man dama lay conseil en tant que frère man jàppaluma la dara barke sëñ Saalu Mbàkke liggéeyal nga amal sa bopp gis nga victimisation bi doxul yërëmtul bi doxul boos dëmba ni nga waxeek man ak barki dëmba sa kàddu doyuma sa wax doyuma ba tax na man li may teg ci loxo sénégalais yi day doon lu leer nañ ndax xaalis ni ñu koy amee dafa métti c'est très difficile dafa métti c'est très difficile doo tëdd nelaw ba 18 heures nga génn ci mbedd bi di ko for non ba tax na dama lay conseil en tant que sœur bàyyi dóor bi bàyyi victimisation bi bàyyi yërëmtulu bi boos nga dem liggéey te yàlla rek a tax yàlla dina la teg loxo nga taral ummi mi jàppale ko